trois espoirs. gittee gittee cerak ndaw gittee gittee gittee gittee gittee gittee diggante mën ngaa taxaw Gris Bordeaux fekk fa waaw waaw eh <laughs> waaw waaw tey lii tey loolu waaw waaw laa ilaaha illallaah yeewaay sama ee eh. diggante Pikine la ak Fass leader bi la Gris nee na ndànk ndànk ndànk Ama Baldé nee na tekk tekk tekk laa ilaaha illallaah ginte ginte Ama ginte Ama ginte Ama ginte ana mbasa mbasa mbasa mbasa ayca mani dañuy del joit nag yar ak teggin rek xolal xolal oh mani mani dama ni ma mani mani mani yar ak teggin rek ñu daal di avancé ayca léegi li ñuy def nag mooy combat bi dafa nekk combat boo xam ni Kajoor production Kajoor production dafa jël combat bu mag bi diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé. ñaam moom la Ibrahima amul moo tax sa góor gi Gaston Mbengue dafa war a jàpp ci komba bi takk ci biir woo sponsor yi yëpp ñu jàpp ci di wax ni encore une fois c'est un combat très important ñu ngi koy waaj merci. waaw man sama question damay ñëw rek ci Ama. dañ la xamoon ci même signature yi ngay tàng di xadaru tey ji nga dal rek looy looy nëbbu bés bi la lan moo waral loolu non dara comme d'habitude wax dëgg yàlla man signature chaque nii dama gisee may signature man mbër laa Malick euh, sam père Bas uh-huh. man jàmbaar du wane ni jàmbaar na tout le temps si diggée bi na koy wane man yàlla dimbali na ma uh-huh. du ma tooñ adversaire lamb du ma adversaire uh-huh. waaye digg géebu maa fa mën duñ géew maa si gën a dof fuuf loolu la ko yàlla dimbali moo tax ay signature damay calme xam nga loolu rek nga nga toog quatre ans gis naa sax nga ñëw euh, làmb ànd ak say poulain xataraa ñu lan nga ne sama yaram dafa tàng hmm. boo mënee dellu si at ci loolu waaw man ba may xale nag ba léegi man nag bul yàlla dafa ma dimbali sama papa hmm. dama tar bi sama papa lu luñ naan lu nit am licence si bëri hmm. sama balaa mooy dee dafa ma bindal signal ma lépp loo xam lu mbër bëri rek mun naa ko mhm. boo defee mun naa boo dindee mun naa loo indi mun naa ko mhm. barki maam Seera Fall te man nag comme lu muy wax ak grand bi maa ngi moom suñu combat dina neex trop dina damay ñëw ci Gris dañ gis doo négocier combat tey ngay bëre xale est-ce que jaa même bi nga nar a bëre waaw Max <laughs> Max yow xam damaa bëgg wax loolu rek. ah non xam nga dañ ne dañ naan expérience face à la jeunesse. waaw mais loolu la waaw waaw. waaw ndax même rythme bi ngay indi wala. yow da ma bëgg wax loolu rek. waaw ah, <laughs> yow xam nga ma yow xam nga xam nga li ma nga li ma mënul mais li wóor ba wóor mooy euh, mbër bu ne dafa am mani te mbër warta bàyyi mani te mbër saa yu bàyyee maninam rek lu ko fekk ci jafe-jafe ci làmbar moo ko teg boppam te man attaquant la sama adversaire attaquant la boobu bu làmb noonu la mën a demee amul leneen man je suis xam ne je man adversaire bu ma toogee ñaari minutes ñëw sax man mën naa ko kaw loolu moo nekk ci ah, loolu loolu laay bëree kon boobu du ma bëre ak ku mu mënti doon du hmm. ma doon bëre yaaw jaan sax man ne li ma mën ak li ma yaakaar ne moom may ndam lay def. waaw xam naa ne daal li ñu xam ci yéen ñaar moom gisuñ leen ngeen di xaar ama jàngewul noonu bëre moom da lay sëkkatal boo déclenché mu jàpp la. amateur yi dañu gaaw a ah. jëpp dañu gaaw a jëppi mbër. Ah. te bëgguma bëgg naa bëre ba tekki sama ngemb. Mm-hmm. te amateur du may am lu may reproché. Mm-hmm. moo tax làmb saa yu ma ci yàlla dëgmalee. Mm-hmm. rek damay def li ma war a def. ndam nag yàlla moo ko moom. te nag làmb ji wax dëgg yàlla bu nekkee coono. coono rek la yàlla di fay. maa ngi ci xar suma tànk tubéy guddi. ak bëccëg suba ak ngoon. ñi may nekkal. xam nañ maa ngi dégg coono yu méttee méttee métti pour am ndam. te ndam nag euh, tëdd nelaw du ko joxe. te nag yàlla nañ ci yàlla suturaal. te nag damay wax ni jëmm ji. duma gën a gore. kii yàgguma ko xam waaye lu mu la wax def ko Ibrahima Diop mii di borom làmb ji lu mu la wax def ko kon boobu bésam bii dama ko ci ñaanal yàlla ndam lépp loo xam ne mës na ko dëgmal rek bëgg ci réussite rek yàlla na ko yàlla defal ci barke alxuraan Lamine di ziar nag euh, mbay guy gi dama la fàtte nuyu te tu es un frère ñoo bokk Medina euh, ëppalewum leen Medina boo jógee waa Medina yëpp jóg kon maa ngi lay ziar di la ñaanal yàlla ndam di nuyu junior agogo mon frère yàlla na yàlla defal jàmm mbën man damay wax ni mbër yi amuma seen fay waatal naa la ci alxuraanu karim waruma ti kàddu bu ñagas wala may dégg ko lépp lu waay wax mbër rek man la ko wax parce que ni ma mbër yi def am na mbër yoo xam ne bokku bokkuma ak ñoom écurie te barki Cheikhou Tidiane maa leen gënal seen ay bët te liggéeyuma ko defaluma leen ko kon boog bépp mbër boo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci Sénégal yàlla na la yàlla defal jàmm commencé ko suma adversaire bi làmb ma ñu boole te làmb moom lu coow lu ñuy waxtaan négocier lépp mooy ku ci nekk loo am sa kër nga yóbbu malgré tout ça loolu mu ñu boole kon nag yàlla na yàlla defal jàmm et c'est le Sénégal qui gagne merci. jërëjëf question bi mu am pour Gris Bordeaux mooy bi mu paree ci combat ak Balla Gaye numéro 2 dañu gis mu toog ak Tafa ak président écurie Abbas Ndoye Tafa temps boobu la combat bi soo a taxaw muy Ama Baldé bokk na ci mbër yi gën a yomb bokk na ci mbër yi gën a neex a bëreel yaakaar naa noonu la ko waxee woon ñun comprendre luñ loolu yow est ce que Tapha Gueye toog ngeen ci roq mu wax la maanaam mu justifié li nga xamante ne wax na ko ko xamante toog na 10 ans daanuwul ah adversaire yi ñu ko mujjee jox ñëpp dafa presque dafa dal seen kaw ñu daanu nga war a bëri ak moom mu ne bokk na ci mbër yi gën a yomb bëreel est ce que explication boobu yow mën nga ko def ah kii ban nga ko laaj. waaw mais xam nga wax moom dégg-dégg la laaj Moustapha Gueye moom am xam-xam ci làmb la mais dégg-dégg wax moom dégg-dégg dégg ko ëpp solo maanaam wax moom bu leen nit waxee dara maanaam na dégg ñu gën a xóot. noo ko déggee yow loolu. li ma ko déggee mooy man fi man giri moom moom Moustapha Gueye giri bi mu xam giri bi mu xam yar ko. jàngal ko lu bari gannaaw ba ma roog ma lax jëlee tàggat ma teg ma def ci man lu bari Zallo ñëw continuer ci moom laa mujjee moom fa mu ko teg rek mooy xam na ma xam na su may capacité xam na lu ma mën su ma jëlee intention wala ma décider ci dara bu ma liggéeyee ni ma war a liggéeyee bëree ni ma war a bëree moom au delà adversaire n'importe quel adversaire pour man warul jafe ci bëri ba warul jafe mais même bu nee la mbër sànkam sax. 3